man gëm naa tariqatul anbiya wa rusul salawatullahi wa salaamu alayhim ajmain أجاهد في سبيل الله يرضيني من الدنيا رضا الرحمن يهديني وأسعى ثابت الأقدام بيقيني فلا دنيا دوما ستغريني بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته yéen waa daara umul muminin yéen ñépp ñu ngi leen di nuyu di leen ñaanal yàlla tawfiq waaye kenn ku ci nekk fa mu mën a nekk ñuy ñaan yàlla suñuy kàddu mu fekk ko ci jàmm di am kontaanteeg mbégte ñëw wuy si leen ci jotaay bi nga xam ne moom ngeen woote macha allah waaye di am mbégte nag daja ceeg sama yaay wala daja ceeg samay yaay ak samay uxtu macha allah yaay ndey faatu nuy nañ la bu baax a baax Seyda Xafsa yow itam ñu ngi lay nuyu naka noonu sunu yaay Zeynab Dia moom itam ñu ngi koy nuyu bu baax waaye di nuyu sunu uxti Sumayya mi nga xam ne macha allah moo ñu dalal ci jotaay bi. di am mbégte ak kontante waaye di ñaan borom bi subhaanahu wa taala mu defal ñu tawfiqam ba li nga xamante ne moom ngeen ñu soxlaa ci jotaay bi ñun ñëpp ñu mën koo matale jërë ngeen jëf naam uxti dañuy yëkkati kàddub inna lillahi wa inna ilayhi rajiun duñu wax lu du li nga xam ne moom la borom bi subhaanahu wa taala gërëm ndax borom bi day lépp lu mu bind rekk utal na ko àpp te itam ñun ñëpp ay jaamam lañ ñi mu jël moo leen moom ñim fi bàyyi it moo leen moom dañuy wax ne ku rafet ki kooku lu mu def rafet na alhamdulillah yàlla ñu doon ay jaam yoo xamante ne bu ñu amee bànneex dañuy sant bu ñu amee naqar dañuy doon ñoo xamante ne dañuy muñ di yëkkati nag jaal di ko jëmale ci ñi nga xam ne ñoom ñooy ay soxnawu imaam sunu waajur yooyu ñu ngi leen di jaale di leen masawu di wax ne mbir la boo xamante ni fu jullit nekk rek wax dëgg yàlla am na ci wàll bokk na ko ak yéen waaye yéen itam di leen ko jaale di ko jaale mboolem jullit ndax imaam Alioune Badara Ndao euh, kooku ku ñëpp maanaam fu jullit mën a nekk rek dafa dafa taxawoon pour yow lam doon taxawee am nga ci wàll mu ci doon bay waaram kon kooku tey buñ ko ñàkkee ñun ñëpp tey ñoo ñàkk di wax ne wax dëgg yàlla ñàkk nañu jàmbar ñàkk nañu góor yàlla ñàkku nañu góor gu diineem ñoroon talam doon woote mu dëggu ca ñàkk nañu góor goo xam ne loo ko mënoon a jox bu ko xañ diineem waaye boo ko naree xañ diineem mu jox la bakkanam kon dañuy wax ne euh, xol yi moom comme ni ma ko waxee woon rek ci suñu benn groupe dama wax ne xol yi tooy na fees na yëg na itam ab wéetaay ndax ñàkk lu metti la waaye nag borom bi lu mu def gën na lu mu dogal war na dañuy sant borom bi subhaanahu wa bu baax a baax di nangu itam li mu teg sunu kaw di ñaan mu may ñu xolu muñ may ko ay njabootam may ko fu jullit mën a nekk sunu papa Alioune ndaw jëmm la woon joo xam ne nekkul ne dañ ko doon gis ci télé yi rekk wala di ko dégg ci rajo yi waaye dafa doonoon jëmm ju ñu xam doonoon sunu sunu baay waaye ab kóllëre dox sunu diggante mu doon koo xamante ne moo xam da nga sori wala da jege ku fonk kóllëre la moo xam xale nga walla mag nga moo xam góor nga moo xam jigéen nga koo mën a doon foo mën a nekk foo mën a féete doon ku yëg nit loolu nag li ko ko may mooy baax ndax jëmm la woon joo xam ne ni muy jàppe nit sa xel sax bu guddul danga naan maa gën a yey wala man rekk la teg fenn fi wala man may ki ko gën a jege ndax yëg-yëg bi nga xam ne daf ko amoon ci doomu aadama yi loolu nag moom mooy mbaax xam nga yenent bi sallallahu alayhi wa sallam bi ko borom bi subhaanahu wa taala di tagg taggu ko ci juddu taggu ko ci am-am waaye ci jukko la ko tagg borom bi subhaanahu wa taala mu ne bi sallallahu alayhi wa sallam innaka la ala xuluqin azim dëgg-dëgg day yow yaay aji gën gi rafet jukko moom yenent bi sallallahu alayhi wa sallam daa di wëlbatiku jàngal ñu ne albirru xusnul xuluq mbaax dëgg moom mooy rafet jukko jukko nag doon loo xamante ni nëbbatuwul damay faral di wax ne am na loo xam ne moom koo ko jox mu delloo la ko waaye koo ko xañ boo moytuwul nga ñàkk ko muy yëg-yëg doomu aadama dafa bindoo bëgg ko yëg moom nag loolu ñu naan yëg-yëg yëg doomu aadama yi loolu borom bi subhaanahu wa taala daf ko ko mayoon doonoon na jëmm joo xam ne loo ñàkk solo dina la won yëg-yëg boo xamante ne yow danga naan déedéet ndax dama toll ni waaye doonoon na jëmm joo xamante ne danga yëg ak suufeem danga yëg ak wàccee boppam loolu nag jukko yooyu lépp ko mayoon mooy imaam dafa doon ku ñu pare préparé dafa doon jëmm ju ñu yar loolu moo tax dangay gis ne boo nekk ak moom lu temps gàtt gàtt nga yëg ne jëmm jii ma jàkkaar lool ku ñu yar la moo xam nag mag nga moo xam ndaw nga mu doon it koo xam ne ab tànneef la woon mu doon koo xam ne ab tànneef la woon ndax borom bi subhaanahu wa dafa wax ne diina jaaxadoo fii naa lanahdiyannahum subulana ñi nga xam ne dañuy jihaat ngir ñun te xam ngeen ne imaam dundam yépp dafa taxawoon ci jihaat mooy borom bi subhaanahu wa jaral ko bakkenam jaral ko alalam yaakaar naa bëri na vidéo yoo xam ne jamono ji gaa ñi ñu ngi koy partage waaye dangay dégg ci ay waxam foo xam ne du ci sax benn waxtaan rekk ngay dajeeg moom mu ne yoon bii li gën a néew ci li nga xam ne yoreel naa ko ko pour jox ko ko mu ne moom mooy sunu bakkan ak sunu alal kon kooku dafa pare woon borom bi mu ne ñi nga xam ne dañuy jihaat ci sunu yoon bii ngir ñun ñun ñoo leen di jubal ci sunu yoon kon damay wax ne préparé boobu ñu ko pare préparé tànneef googu mu doon man dama naan xëy na moo tax borom bi subhaanahu wa taw féexal ko ci li nga xamante ne moom mooy dëgg-dëgg ay jukko yu rafet ba nga xam ne képp ku mu jëflanteer rek jukkoom ju rafet dafay dafay ruus ci moom bokkoon na lu ñu nawoon loolu ci moom muy ab dëggoom ndax imaam doonoon na jëmm joo xam ni la mu woote ngir diineem nattu yaka ca fekk su fekkoonte ne la mu woote dëgguwul ci moom kon mu taxawee woon na neen waaye ndeysaan mi ngi doon wax ca aaya ba naan borom bi subhaanahu wa taala nee axasiba annaasu an yutraku an yaqulu amanna waaye wa hum laa yuftanuun wa laqad fatanna alladina min qablihim fala yaclamanna allahu alladina wala yaclamanna alkaazibin subhaanallah mooy yoon bi moom ku ko mës a engagé ku ne borom bi subhaanahu wa taala nattu la waaye ca nattu ya muy tegaate ah ca la ñuy xam nag ñan ñooy gaañu yàlla ya ñan woote te mu dëggu ci ñoom dañuy gën a engagé wala dañuy dellu ginnaaw hmm? waaye moom day ba borom bi subhanahu wa taala nattoo delluwul ginnaaw de lu ñépp mën a seede la ku gën a engagé wu la ku gën a dëgëral tànkam ca lam doon woote la ak nattu ya la muy metti ak la muy diis ba tey ni ko fi borom bi subhaanahu wa kon dañuy wax alhamdulillahi rabbil alamin ci sunu góor gi macha allah dañuy sant borom bi subhaanahu ndax sant rekk moo ñu war baneen bi di wax ne góorgóorlu na nekk na fi ba jóge fi te taxawaayam dara ñaawu ci ku ko xam xam ko ci boole xam ko ci defaree waaye dama ne defu fi lu ñaaw mbaa mu wax fi luñ ko fi xeebee moo tax loolu lu jar a bàyyee xel la fexe na ba doon bennale fexe na ba doon boole fexe na ba doon defaree muy nag lu jaraat bàyyi xel def ko jàngat ci ay jukkoom rawatina ñi nga xam ne tey ñoo nekk ci yoon bi waaye di wax ne imaam darajaam li dal ñenn ñi tey li dal ñi tey moom dalu ko muy sa daraja tax ngay xeebe te tey yaa ngi woote di jàngale ci yoonu diine waaye beneen bi itam olof danaan kuy digle cangaay kooku danga war ne wicc mooy bay ah wax dëgg yàlla nag ci say wegu tànk moom nag loolu lu mu bàyyi woon xel la góorgóorlu ca lool ni nga koy séenee muy woote ci biteem boo demee woote boobu da ngay fekk mu koy dund ak ay njabootam loolu nag lu am solo la ci ab wootekat lu am solo la ndax bari na ci jamono ji koo xam ne day woote dee koy dégg waaye bu ko nangoo gis ndax boo ko gisee nga nawadi ko boo demee ba jëflanteeg moom doo ko fekk ci moom doo ko fekk ci ay njabootam te gis nga wootekat yu bari nañu bàyyee xel ne nit ki la muy woote ay jëfam ñoo koy mottali nit ñi am na ci ñoo xam ne ni ñuy bàyyee xel sa jëf duñ ko bàyyee xel sa kàddu kon yow miy woote na nga bàyyee xel ne sas bu mag nga am baneen bi di wax ne bari na ci wootekat yi ñoo xam ne seeni daraja da leen a dañ koo bàyyi xel lool loolu yóbbee na leen ñàkk ab oyof te lool ba koo ci jëflanteel nga doyal loolu itam lu jar a bàyyee xel la ndax nit ñi toppewuñ la yow ki nga doon ndax xam nañ ne jëmm nga comme jëmm yépp xam nañ ne itam doomu aadama comme ñépp nekkul ne dañ laa jàppee ngir yaakaare ne dangay fanaan ci kaw ñuy fanaan ci suuf dee déedéet waaye ci li ngay woote ngir yàlla ñu ci bari lool lañ la téyee kon di wax ne jëflante yi ndax nag dañuy wax ne balaa nga naan naam danga fay nekk te sey shay'in laa yu'tihi nit ki li mu amul kooku mënu koo joxe moo tax dama wax ne wootekat yi nañu bàyyee xel jukkooy imaam bi man dey ku ci jànge laa ku ci defub jàngat laa waaye maa ngi ñaanit samay mbokku jullit rawatina ñi nga xam ne dañuy woote nit ñi di leen bàyyee xel ngir seen woote boobu ñu bàyyee xel taxawaay yi nga xam ne dañu koy jëflanteeg nit ñi donte ne doomu aadama moom ku ñàkk mën a matala la dafay jéem rek kéemtalaay kàttanam yàlla na borom bi subhaanahu wa taala defal tawfiq ay jaamam ci lu ñu marqué ci moom mu jara defub jàngat ndax dama ne yenn yi nag xol bu set bu laab moo koy def muy jekku mën a fayu nga baale mu ne jukka jooju dama koy roy ci yenent bi sallallahu alayhi wa moom imaam ci ay kàddoom mu ne ndax yenent bi sallallahu alayhi wa sallam génnee nañ ko màkka ga mu bokk mu dellu siwaat ak lañ ko fa dajloo lañ ko fa def lañ ko fa dundloo lépp mu doon koo xam ne dafa baale mu ne loolu lu muy roy ci yenent bi sallallahu alayhi mu doon lu jafe parce que xam ngeen ne mag mi mu doonoon kilifa gi mu doonoon nga jël mag mu toll ni moom tëj ko ci ab tooñeel di ko jéem a toroxal di ko dund loo xam ne méngoowul ak ay àqam mu génn ci loolu ngeen doon def ndax ku xam luwaa la itam mu mënoon leen cee fekk si tegaat mbir yi ci yoon ngir joytu ay àqam waaye mu ne moom baale na ngir roy sunna yent bi sallallahu alayhi wa sallam akbar lu jar a defub jàngat di laaj sama bopp la jiitu ndax xol boobu am naa ko waaye di samay mbokk jullit ndax xol boobu am nañ ko ndax lu yomb la kon ay jukko yu rafet yu ñu mën a seede ci moom waaye lu ñu mën a jëlee ci moom roy ko ca lu bëree bëree bëri la ci lu ñu xam ci moom ci yoo xam ne dund na ko ci mbir yoo xamante ne itam gaar na ko ci mbir yoo xamante ne itam jëflante na ko baneen bi Seyda lu jiitu sunu temps di jeex damay lancer appel damay lancé appel ci ñi nga xam ne ñoo jàppoon imaam ci tooñeel di def ci moom ay tasarrufaat yu leen neex ay jëfin yu ñaaw ñooñu day suñu tuubul ragalal naa leen nañu tuub seen digganteek seen boroom te jéem di ko ñaanal la an la boroom bi yërëmee leen ci ndax boroom bi nee na inna alladina fatanu almuminina walmuminati summa lam yatuubu fa lahum adabu jahannam wa lahum adabu alxariq borom bi mu ne ñi nga xam ne dañuy fitnaal jullit ñu góor ñi ak ñu jigéen ñi waaye te tuubuñu ñu nekkee loolu ba dee mu ne ñeel na leen mbugalu jahannam yow sama mbokk jullit nattal yow mi nekk ci àddina rekk boo mënee dékku benn xalu safara nga teg ci sa tànk ba koroog muy fay loo tale la kon nag fa maa baalu mbugalu jahannam borom bi subhaanahu wa nee na ñi nga xam ne ñooy fitnaal way gëm yu góor ñi ak ñu jigéen ñi dee ci loolu te tuubuñu borom bi nee na ñeel na leen safara jahannama de waaye safara boo xam ne day lakk waaye déggal borom subhaanahu wa taala lam ci tegaat borom bi subhaanahu lam ca teg mooy bégloo wayu gëm yi borom bi subhaanahu wa ku bañ tooñ la mu ne inna alladina amanu wa amilu salihaati lahum jannatun tajri min tahtiha al anhaar borom bi mu ne zalika al fawzul mu ne ñi nga xam ne ñoom ñooy way gam yi di jëf-jëf ju baax mu ne ñeel na leen àjjana joo xam ne day dox ci suufam day daw ci suufam ay dex borom bi subhaanahu wa taala mu ne loolu nag mu ne ab ngañaay bu mag la subhaanallah kon man dey xawma ku leen tiitalul waaye tiital naa leen te itam nañu xam ne tuub ak jéggalu seen boroom ak jéem a def nag ay jëf yu baax li def seen dund ah war nañoo daw nag daal di cay jëm ndax ku am jama bu toloon ni imaam am na laneen lu jekkoon ci moom nga jëflante kook moom lu dul seen taxawaayu ñaaw yi waaye di leen wax ne itam di leen wax ne itam bu ñu bég de mbaa ñu kontaan ñoom defkatu ñaawteef yooyu ngir ne tey imaam dafee jóge ndax imaam pas-pas ba mu amoon gëm-gëm ga mu amoon yoon bi mu doon woote moom kenn ku fi jóge la waaye tey ay junneem ñi ngi dund gëm lam doon woote nekk ci yoon bi di ci woote te dara du tax ñu bàyyi ko même bu ñu laajoon seen bakken ba keroog ñuy fekk ci seen boroom kon loolu itam nañ ko bàyyee xel bu baax a baax te bu ñu jàpp ne itam mukk seeni sabab ñoom doonte ne su fekkoonte ne sax dañoo jéem ni ñoom ca seeni sabab la fi bàyyeekoo déedéet nañu xam ne borom bi subhanahu wa du bind ci téeméeri fan di rey ci juróom-ñeenti fukkeel bi wala juróom-ñeenti fukkeel bi ak juróom-ñeent déedéet waaye dafa fekk ne lépp loo gis ajal la te borom bi subhanahu bu tegee ab ndigalam lenn du ko dindi Sayda Sumayya di jeexalee ñoom ñi nga xam ne ñoo taxee woon taxawaay yu ñaaw yii jëmale ko ci sunu imaam bi di leen wax ne borom bi nee na wala taxsabanna alladina qutilu fi sabilillahi mu ne amwaatan waaye bal axyaaun inda rabbihim yurzaquun borom bi nee na bu leen yaakaar ni ñi nga xam ne tey dañ leen a ray ci yoonu yàlla ñi ñuy rey ci yoonu yàlla mooy ñan mooy ñi nga xam ne tey dañ doon xeexal islaam ba ñu rey leen ñi nga xam ne tey dañu doon défendre islaam ñu rey leen jël seeni ba bakken joxe nañu seeni alal joxe nañu seeni doole joxe nañu seeni temps lenn rek moo leen ñoroon muy dëggu yàlla bi jëm kaw lépp luy neen daal di jóge seeni xeet borom bi nee na borom bi nee na ñi doon taxawe lii ba ñu faat leen ci yoonu yàlla mu ne bu ñu yaakaar ne ñooñu dañoo faatu waaye bal li fi nekk moom mooy ña ngay dund ca seen borom mu leen di wërsëgal allahumma lakal hamd ña nga ca borom bi subhanahu wa taala mu leen di xéewalal di ñaan gaañooñu sunu imam ba yàlla na ci bokk ay jëfam yu baax yàlla na ko wallu lépp loo xam ne matadi nit tax na nit tàbbi ca muy ay njuumte ak i rëcc-rëcc yàlla na ko borom bi subhaanahu wa taala jéggal dëgg moo ko ñoroon woote diine ju set ju leer ju amul bokkaale moo ko ñoroon waaye ku daan defaree la ku sori woon lépp luy féewale la waaye ku bëggoon dëgg la te pare woon ci leeral ko xattaa suy leeree sax ba ñu jël bakkanam kon nag dañuy sant yàlla di wax ne ñàkk nañu ku baax ku amoon ay qualité yu rafet yu jara roy moom day jóge na fi waaye ay jëfam yu baax mi ngi fi tege ay jukkoom yu rafet yoo xam ne mën nañ ko koo roy mu ngi fi tege di ñaan borom bi subhanahu wa taala yàlla na ko jéggal yàlla na ko yërëm yàlla na yaatal bàmmeelam yàlla nañu ko borom bi subhanahu wa taala wéttalil lépp loo xam ne doon na ko taxawee ci ay yiw yàlla na doon leeru bàmmeel ci moom yàlla na bokk ci jëf yi nga xam ne da koy wallu ci bàmmeelam ak àllaaxiraam ak mbooleem néewu jullit ñi ngi ñaan borom bi subhaanahu wa taala moom day moo xam yërmaande ga mu yelloo moom sunu imaam Aliyu Ndaw yàlla na ko borom bi subhaanahu wa taala sëmbaxtal ci moom bi day moo xam yërmaande ga mu yelloo yàlla na ko sëmbaxtal ci moom borom bi subhaanahu wa taala moo xam yërmaande ga mu yelloo yàlla na ko sëmbaxtal ci moom ak mbooleem néewu jullit fu mu mën a nekk yàlla na ko borom bi subhaanahu wa taala muur ak malaanu suturaam ni mu ko suturaalee ba mu jóge fi yàlla na ko suturaal ca la muy fekki yàlla na ko suturaal ci li mu bàyyi ci ginnaawam di ñaan borom bi subhaanahu wa taala ñun ñi fi desandi yàlla na borom bi subhaanahu wa taala jubal ñu te tënkuñu ci dëgg waaye baaxal sunu xol yi wërsëgal ñu ay jukko yu baax ndekete danga ciy jànge rek ni jukko mooy nit jukko moom mooy nit te nit ñi day ku leen jox yëg-yëg ah ñu delloo la ko te imaam nit ñi ñoo ko deseel njukkal parce que joxoon na leen yëg-yëg waaye itam pare woon na ci lépp lu mu laaj ci seen diine leer ci lépp lu mu laaj nit ñi sori ay lënt-lënt ak i njuumte ak lu leen tàbbal seen meru boroom loolu moom lu ko jaraloon la pour nit ñu jógee ci yàlla ñu ko borom bi subhanahu wa taala fayal bu ko defee ñuy jéggalu ci kàddu bi ci guddal bi mu mel ni temps bi ñu mayoon jeex na lépp lu ci jub ci tawfiiqu borom bi subhanahu wa taala la dañu koy santee borom bi subhanahu wa waaye lu ci dëngte rek day dellu ci matadi doomu aadama muy dellu ci sunuy matadi ñu koy jéggalu borom bi subhanahu wa taala di leen ko jéggalu jërë ngeen jëf di ñaan borom bi subhaanahu wa taala mu defal ñu tawfiq waaye may ñu ixlaas tënku ñu ci ab njubam nag ba keroog ñu koy fekk ji jërë ngeen jëf ahsanallahu ilaykunna soxna yi salaamaaleykum wa wa barakaatu fi ba tax nga bàyyi dëggub yàlla gi ci kaw suuf amu fi ragal dee njàmbaar dee te dee du ñëw mukk ci dul bisam inna ajalallahi isa jaa la yu law kuntum taalamun kon jëlaat leen seen responsabilité ujahidu fi sabilillahi yurdini min addunya rida arrahmani yahdini wa as'a thabita alaqdami biyaqini fala dunya alwara yawman satughrini